la bayka yàlla ne bugguma parce que xam nga lu tax ci deri gor yi la añ di ci reer di ci ndékki léegi ku bàyyiwul loolu xel lu la neex xoolal fenalal ku la neex ñu lay jox ngay téye yow daal li nga wax bu ci seet yàlla mm. ñu lay jox ngay téye di dundal sa njaboot yaa ngi posone sa njaboot te doo leen mën a jubbanti Cheikh Ibra Fall nee na alal fu mu dugg rek xol borom fa la jëm mm-hmm. kon nag nañ defaraat seen toogaay ñoom surtout surtout sans limite. sans limite ña ca des sax moom waxuma seeni wax waaye dama leen di laaye biir ñoom ñëpp parce que jigéen ñaa ca gën a bari sans limite tey boo xoolee seen émission yi jigéen ñetti jigéen ñoo ñoo ko lëmbee mooy euh, nu mu sax ki ci des ki sant Samb ak beneen kii bi keneen ku xaw a kii gi talex yi kii ak ngóone dama xamul ñu jëlee seen tur ñoom ñett ñooñu daal suba su jot ñi ngi toog li ñuy wax nag seetuñu ci yàlla seetuñu ci dara. kenn ka gis naa ko ñoo ngi ko may neuf cent cinquante mille euros ne ko ndékki ci neuf cent cinquante mil ne ko ndékkil mm. léegi nag moom moo xam waaye daal lépp lu muy jël war ko def ci biiram di ci dundal njabootam na ko xoolaat bu baax yàqu derub góor moom ñu lay jox ngay téye ku ko ci def rek yaa ngi posé sa njaboot wax lu dul dëgg nag ci jigéen ah man de am na ñoo xam ne bis bu ma yëgee ne ñu ngi leen di bëgg a takk su ma jegee seen jëkkër dinaa ne ko pareel njabootuk fenkat ngay am na nga pare xam ne kii nga takk moom ay fenkat la lay jur hmm. ndax ñu ku mu jur dina ko nàmpal te dina ko topp ween moom ñëpp xam nañu ween du tricher li nga ki nàmpa rek loolu ngay toqamti ko hmm. xaw ma fen yi nag fan lañ ko doon ne waaye am na ci ñoo xam ne moom ku leen takk ay fenkat ngay jur ndax dañ ci nàmp moo tax buñ lay tànn tànnloo nga dem tànni jabar ju baax lu tax ñu la koy tànnloo meew maa tax nàmp la muy nàmp ci kër sax dangay gis sax jëkkër joo xam ne day doy waar mais jabar ji dina baax mbaaxaay goo xam ne doom ji lam nàmp lay toqamte ko ñii nag liñ nekkee xam naa dañ koo nàmp te moom la ñuy nàmpalaat di continuer maa ngi wax góoru Sénégal nag hmm. bu ñu leen fi mën a épargne ñoom ba keroog ñu soppi jikko ñu def ko parce que seen jikko ji moom ku leen takki di nga leen ñaanal góor ñi nag waxuma leen ndax ay góoru wat bang lañ du moom du ma wax seeni wax hmm. man lu may am leçon de morale jigéen ñi laa koy wax d'accord góor moom bu jàddee yoon duma leen laa ci xam mais jigéen naa leen yedd salma na góorgóorlu parce que kanamam gi ñàng na eh. te li muy juum bari na li muy wax lu dëgg bari na parce que bu xullee kanamam gi nga daw mm-hmm. jigéen bu la nga daw mm-hmm. su su su waxee wax lu naka su dul noonu mais kooku jëkkër ji jàmbaar la de bu dee sëy naa ak moom ay at jàmbaar la de kon yow li nga jàpp mooy site la boo xamante ne kii de maa def moom ñaari fan parce que <laughs> bu waxee xulli la ba xulli ma ma daw <laughs> mënu maa def ak moom ñaari nañ góorgóorlu waay kon yow li nga jàpp mooy site la xamante ne gouvernement bi moom moo ko fa teg non waxuma ne gouvernement bi ndax fa ko fekk. Mhm. waaye ñoom daal seeni wax yi ci ëpp faveur gouvernement bi la. ndax saa limite surtout people la woon. Mhm. people la daan def ay musique sabar fii le motif fii scandale fii. Mhm. ceew aji saara ñëw ñu wëlbatiku parce que Ousmane nag euh, beaucoup de sites information beaucoup dee télé ak ay rajo yëpp Ousmane daanaka dafa investir dooleem ah. fu mu